أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey noo ngi ànd ak yéen ci kitaabu tawxid ñu toll ci min ashirki iradatul insaan bi amali dunya tomb boobu mbokk yi moom la ñuy continuer darsu passé ñu nekkoon ci xadisu abi hurayra tey ñuy jël leeral gi nga xam ne borom téere bi leeral na ko ci aaya bi ñu romboon bañ ko ci laajee ay laaj mu ne fa ajaaba bi ma xasalahu zikrun ani salaf fiha anwaaun mimma yafaluhu nnaas alyawma wala yaarifuuna maanaa mu ne bañ ko laajee dafa tontu moom sëriñ bi tey ci ay mbir yi nga xam ne mu ngi xew lu bare bari ci doomu aadama di ko def doomu aadama yi di ko def te xamuñu maanaam xamuñu la muy tekki ci seeni jëf mu ne wa min zalika al amalu saalix mu ne bokk na ca loolu nit ñi di def jëf ju baax joo xam ne doomu aadama yu bari ñu ngi koy def yafaluhu kasirun min annaas ibtigaa wajhallah ñu baree bari ñu ngi koy def di ut ngërëmal yàlla loolu doomu aadama yooyu di def lan la min sadaqa sarax wassalaa julli wasila jokk mbokk wa ixsaan ila nnaas rafetal ci nit ñi wa tarki zulmi bàyyi tooñ wa nahwi zalik mimma yafaluhu l insaan aw yatrukuhu xaalisan lillah mu ne xoolal xeet yi ñu wax ci xeetu jëf yu baax ci saraxe julli jokk mbokk rafetal ci ay nit bàyyi tooñ mu ne jëf yu mel nii ñu bari ci doomu aadama yi ñu ngi koy def waaye lan moo tax ñu koy def mu ne ñu bari ñu ngi koy def ngir ut xaalis lillah yàlla rek moo tax ñu koy def waaye lan mooy seen problème lakinnahu la yuridu sawabu fi alaxira man ne dama koy def ngir yàlla mais jarul yàlla di ma fay ëllëg alaxira loolu musiba la ab julit suy jaamu yàlla yàlla sant ko ay jëf mu koy def na jàpp ne lépp lu mu def daf cee war a yaakaar fay àllaaxira waaye mbir mi bul ne rek li sénégalais yi di wax man de damay julli rek su ma yàlla dugalee safara sax baax na damay julli parce que déedéet yàlla moo santaane nañ ko jaamu jëf yu baax yi mu wax saraxe julli jokk mbokk def lu baax bàyyi tooñ lii yépp ay jëf la yoo xam ne yàlla moo la ko sant léegi nag soo koy def ngir moom lan ca war a teg mooy yaakaar ci tiyaaba nga bëgg yàlla fay la moo tax nga koy def innama yuridu an yujazihi llahu bi hifzi mali wala li tax yenn saa yi doomu aadama def mooy lii de damay saraxe soo ko yaakaar soo ko waxee waaw lu tax ngay saraxe mu ne pour yàlla garder sama alal bi loolu moo tax waa ji di saraxe kon defatul ngir yàlla waaw lu tax ngay julli damaa bëgg yàlla aar ma moo tax gis nga li ëpp ci nit ñi Sénégal waxtu yi da ngay fekk jàkk yi fees julli suba julli timis même kër yi su nit di yeewu nelaw fajar dañ koy yee jógal julli mais tisbaar kenn du la wax jógal julli takkusaan kenn du la wax jógal julli gée kenn du la wax jógal julli mais gis nga timis ak suba lu ëpp ci nit ñi dañ leen koy julli loo baa julli nga surtout xale yi lu tax parce que dañuy jàpp ne jinne yi ca la ñuy jóg pour lan boo julee timis yàlla aar la jinne yi duñ la laal ci guddi gi boo jullee suba yàlla aar la jinne yi duñ la laal ci suba bi ab jaamu yàlla ab jullit warta jaamoo noonu yàlla sooy saraxe li war a tax ngay saraxe mooy bëgg ngërëmal yàlla bëgg yàlla fay la sooy jokk mbokk li tax nga koy def mooy bëgg tiyaaba sooy julli lu tax nga koy def mooy bëgg yàlla fay la amma di ko def pour yàlla wattu sa alal wala yàlla meññal alal bi loolu amul benn njëriñ naa saraxe pour yàlla wattu sama alal barkeel ko sa sarax boobu amatul njëriñ déedéet naa saraxe parce que sarax yàllaa ma ko sant ma def ko ngir yàlla yaakaar ci fayam moo tax gis nga alxuraan ba muy wax ci jëf yi bu ñu koy def dafa ne man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saalih ku mu wóor ne di nga dajeeg sa borom yaakaar sa borom def lay fay mu ne defal jëf ju baax aw hifz ahlihi wa iyaalihi am na ñoo xam dañuy def lu baax pour lan pour yàlla wattu leen ñoom waaye pour yàlla wattu seen njaboot xoola ki nga xam ne yenn saa yi day saraxe day jël sarax bi wërale ko ci boppam woo ay doomam wërale leen ko doog a saraxe sarax bi loolu mooy lan mooy musiba yi waroon këpp sama kaw ak sama njaboot na dem ci waa ji may jox sarax bi kooku léegi bu ñu ko laajee lu tax nga saraxe bokk na ci li muy tontu danaan sarax jaamu yàlla la yàlla moo ko santaane def naa ko dëgg la jaamu yàlla la yàlla moo ko santaane def nga ko mais est-ce que ni nga ko defee noonu est-ce que balaa ngay saraxe dangaa war a jël sarax bi wërale ko sa bopp ñetti yoon wërale ko sa ndigg wërale ko say tànk daal di woo sa doom def noonu doog koo jox waa ji ndax bu ñu fàtte yonent bi moo ñu jàngal lan doo mën a gëm yàlla lu dul li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa bopp laa yumin ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsihi li nga bëggal sa bopp loolu nga war a bëggal mbokk jullit bi yow noo bëggee wér nga ni kii na feebar noo bëggee dund nga ni kii na dee noo bëggee nekk ci jàmm nga ni kii na nekk ci musiba kon muy tekki mooy gëmagoo yàlla kon ñu bari ci doomu aadama yi dañuy def xeeti jaamu yàlla yi xeeti jëf yu baax yi waaye seen problème mooy duñ ci yaakaar yàlla fay leen dañuy bëgg yàlla wattu seen alal meññ ko bëril ko wala yàlla wattu leen ñoom wala wattu seen njaboot waaye defuñu jaamu yàlla bi ngir ko yàlla moo leen ko sant loolu baaxul aw idamati naim alayhim wala lenn saa yi nga gis kuy def lu baax par exemple alal nga gis koo xam ne day joxe rek di joxe di joxe ñi xamul au fond dañ naan waaw kii de ku baax la fekk moom li tax muy joxe dafa dégg sooy joxe xa alal ji dafiy nekk kon moom joxeetul ngir yàlla la moo tax muy joxe mooy alal ji na fi nekk loolu du am tiyaaba sa alal ji day dem ba pare nga perte doo am tiyaaba sooy joxe da nga war a gëm ne yàlla moo la ko sant nga joxe ngir moom mais nga yaakaar ci moom aussi mu fay la mbokk jullit yi innama yuridu an yujazihi llahu bi hifzi maalihi comme niñ ko waxee loolu wala himmata lahu fi talabil janna gis nga waa jooju moom yoonam nekku ci aljana déedéet waaw yoonam nekku ci bëgg aljanna te kuy jaamu yàlla li nga war a bëgg mooy bëgg aljanna waxtu wi jot léegi ñu julli ko suñ ñu laajoon lu tax ngeen julli julli gi dañoo war a wax ne ñun ay jaam lañ yàlla moo nu sant jaamu yàlla ñu sant julli waxtu wi jot na yàlla nangam bii lañ ci sant ñu def ko ngir moom ba pare yaakaar mu fay ñu kontaan ci ñun dugal ñu aljanna loolu mooy tontu bi waaye julli jot na rek naa julli non loolu amoo tiyaaba lu tax ngay woor ah man dama war a woor ah parce que koor so bon rus naa nekk fi di lekk xale yi ah xale yi ma an déedéet julli jot na lu tax nga jóg julli nga ne non dama xam ne man kenn dëgg-dëgg ah dëkk bi yëpp mënuñu fee toog atelier bi ñëpp mënuñoo wàcc man ma toog fi di liggéey kon naa ànd ak nit ñi rek loolu doo am tiyaaba da ngay sonn da ngay def effort ba pare doo am benn tiyaaba kon yaakaaral yàlla dugal la aljanna ci jaamu yi nga koy def waaye wal harbi minan naar na nga daw safara ci jaamu yàlla yi ngay def mu ne fa haza yu'ti sawaabu amalihi fi dunya wa laysa lahu fi al-akhirati nasib wa hadha an-naw zakarahu ibnu abbas sëriñ bu tudd ibnu abbas ba muy leeral di leeralal jullit yi di leeralal nit ñi ñi nga xam ne dañuy jëf jaamu yàlla jaamu yàlla gi au lieu ñu def ko ngir yàlla waaye ñu def ko ngir àdduna moom ibnu abbas ba muy leeral groupe yoobu ñii la ci njëkke ñii ñii ma njëkk a wax léegi nii mooy seeni tiyaaba yépp soxlawuñ ci dara lu dul àdduna julli ngir yàlla aar ma kese moo tax muy julli saraxe ngir yàlla aar alal ji jokk mbokk ngir ñu ne kii ku baax la jihaad ngir ñu ne jàmbaar la jàng alxuraan ngir ñu ne aka neex baat léegi nag lii lépp nga def doo am yàlla xoolal lépp te li nga def lépp lu baax la ndax di nga fekk nit muy julli nga ne ko yow li ngay def lu bon la ndax di nga fekk nit di jàng alxuraan nga ne ko li ngay def baaxul ndax di nga fekk nit koo xam ne day saraxe nga ne ko li ngay def baaxul déedéet maanaam li muy def lépp lu baax la waaye du am yàlla lu tax ndax yàlla animé wu ko ngir mu def ko moom dafa def lii ngir lee ñaareel bi mu ne an nawu saani wa huwa akbar min al awwali yaa ngi gis an nawu saani ñaareelu nit ñi groupe bi mu ne ñii ñoo gën a rëy sax nag ñii ñoo gën a garaaw wa axwaf ñii ñoo gën a tiitlu lu tax wa huwa alladi dakarahu mujahid fi l aaya mu ne ñii la sëriñ boobu di firi alquran tudd mujahid ñii la leeral ci aaya bi mu ne annaha nazalat aaya bi dafa wàcc wa huwa an yamala amalan mu ne mooy waa ji jëf ay jëf saaliha jëf yu baax wa niya wa niyatuhu riyaa nnas ndeysaan xoola waa ji dugg ci jàkka ji rek ak grand bu weex bi mbaxne bu weex bi chemise bu weex yi caaya bu weex bi kawas yu weex yi mu ngi xeeñ parfum mi ngi leer jubal ci kanamu sàppe ñëw ne allahu akbar jàng alxuraan bu neex ruko ruko yu mat sujjóot daal di toog taaya ñépp di ko xool mu sëlmal daal ne ci xolam ah gars yi de tey wan la xam naa ne maa leen dàq julli dóor nal naa leen ñaari ràkka yu garaaw xoolal kooku lim def yépp perte na lu tax ndax yéene bi mu yéene mooy wan nit ñi ne maa leen dàq julli te xoolal lim def ni mu baaxee jaamu na yàlla ah an yamala amalan saaliha li muy def lu baax la saraxe na jàng na alquran jokk na mbokk bàyyi na tooñ waaye lan mooy yéeneem pour nit ñi wax ko moo tax perte na loola tax mbokk yi lii mujaahid wax ne ñii ñoo gën a dangereux ñii ñoo gën a tiitlu wallahi dëgg la moo tax ñun ñëpp ku mun doon ci ñun war nga xeex ak sa bakkan ba jaamu yàlla yi ngay def nga def ko ngir yàlla kese kese kese kese nga bañ cee boole kenn ak lenn ak say bakkan ak say bëgg-bëgg mu ne laa talaafu sawaab al axira waa ji day def lii mais xemmemul ëllëg tiyaaba alaaxira jullit buy jaamu yàlla dafa war a xemmem tiyaaba war a xemmem yàlla fay ko léegi nag ki nga xam ne moom dafa def xemmemul tiyaaba ëllëg alaaxira day perte ñooñ ñooy deuxième bi annaw salis troisième groupe an yamala amalan mu ne nit a ngi nii koo xam ne day jëf ay jëf saaliha waaye yaqsudu biha maalan jëf ju baax lay def de waaye lu mu ci yaakaar dañ ko fay waaw saa yi dooñ defal conférence si ban dat nangam tem nangam nga bëgg a dem mu ne déet kaay la deux cent mille la de saa yi dooñ jiite weeru koor gi aha kay ah bismillah ah bu koor gi jeexee yéen ma jox lu ma jullee koor ite de gis nga ndax sama kër fa ma bàyyi fa dara maanaam au lieu nga def ngir yàlla léegi yow alalu àdduna moo la tax a jóg benn waaye ci benn jàkk xam nga am na jàkk yoo xam ne ima euh, gouvernement bi mooy jël imaam yi ak im yow yaay dañ lay jël ci jàkk ji yow yaay nekk bilaal bi yaay li xaam yaay jiiti beer dee ñu fay la am na benn dëkk benn waay dafa war a jiite mu ñëw taxaw fële nit ñi nit ñi xam nañ ne moom mooy imaam bi nit ñi taxaw taxaw di ko xaar mu taxaw fële moom ci ginnaaw sàppe yi benn waay ne waaw yow mu ne damaa jël conseil maanaam moom imaam la kon fonctionnaire la au lieu mu ñëw jiite mu ne dama jël congé kon du ma jiite ut leen keneen ku leen jiite kon ça veut dire que moom lu tax muy jiite mooy salaire bi comme léegi nag dafa jël congé gars yi ne ko kaay mu ne damaa jël congé léegi kooku moom mbokk yi nodd yooyu muy nodd ixaam yooyu muy ixaam julli yooyu muy julli lan la ci yaakaar ah waaw wala koo xam ne day sang néew bu paree na fay leen ma cinquante mille ngeen may fay wala soixante quinze mille maanaam loolu mooy nit def def lu baax waaye lan la yaakaar ci waxuma sax mu yaakaar ci ngir nit ñi wax déedéet ne man da ngeen may fay de da ngeen may fay bu ngeen ma fayee ma def bu ngeen ma fayee ma dem taxaw fee damay jiite ñu ne da ngay fay bu weer dee da ngeen may fay maay imaam de waaye damay am salaire bu ngeen nangoo mu jiite bu ngeen nangul ma dem toog loolu ñooñu ñooy troisième groupe ñu nga xam ne dañuy def. waaye lan moo leen poussé ca la ñuy def mooy lan maalan alal moo tax ñuy def misla an yahujja li maalin yaxuzuhu laa lillah day aji wala yenn saa nga dégg ku ne dem naa cinquante fois aj soo fa demee nga topp ko da ngay gis aj taxu ko jóg lu ko tax a jóg mooy uti alal kese moo ko tax a jóg yenn saa nga dégg jigéen ju ne dem naa oh am na ñoo xam ne sax xamatuñ li ñu dem waaye booy xool ñoo ñëpp lan la uti alalu àdduna aw yuhaajiru li dunya yusibuha wala mu jógee dëkk toxu dem dëkk lan moo ko fa yóbbu mbirum àdduna mbirum yàlla yóbbuwu ko waaw te soo ko nee nag lan moo tax nga ne mu ne damaa gàddaay seen dëkk bi dara baaxu fi waaye ndeke yàlla yóbbuwu ko ay intérêt moo ko yóbbu aw imra an tazawwajuha waaw instant nga gis sénégalais bu jógee Sénégal dem Amérique lu ko fa yóbbu benn xale bu jigéen benn sénégalais bu jógee Sénégal dem France lu ko fa yóbbu jigéen tax mu changé dem fekki kooku benn mbokk dafa xam ak benn jigéen ci Facebook bi ñu toppante toppante toppante toppante ba nit ndaw si jógee États-Unis ñëw parcelle ñëw dal ci këram ñu ñu ne dañuy takk ñu ñëw ci benn borom xam-xam bu mag buy jiite foofu ci jàkk yi nekk parcelle ñu ne ko dañoo bëgg nga takk sëy bii kii mooy takk kii mu ne ku jigéen ki anay waliyum gars yi ne ko ah moom kat étranger la États-Unis la jógee ñëw fii mu ne man duma takk jigéen joo xam ne ay waliyum gisuma leen gars yi dem beneen jàkk ñu takk sëy bi mbokk bi bi mu jëlee ay bagage am di dem gaa yi di ko dénk gaa yi ne ko comme yaa ngi sëyi boo demee nga muñ kan lañ waroon wax loolu kan buy sëyi lañ war a wax muñal Sénégal aada mooy kan mooy sëyi ñu ne la muñal ku jigéen mais fii nag moom contraire la kan mooy sëyi lu góor gi gaa yi ne ko nag yow lañ lay dénk kaay comme yaa ngi dem nag boo demee nga muñ waaye gaa yi doon ko tooñ wax ko loolu maanaam imaam boobu lu mu def mooy dëgg ndax jigéen yàlla dane buñ koy takk fankihuhunna bi izni ahlihinna yonent bi nee na laa nikaaha illa bi wali jigéen kilifaam moo koy maye waaye jigéen ju gàddu sërëm rek ñëw ne la takk ma ana ndeyam ana baayam ana kuñ ko baayale ana nijaayam ana daraam xamoo lan la dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg am na ñu dal xel am na benn xissa du ñu dañ di ko nettali benn borom xam-xam bu mag ci yaman borom alal la gars yi sax dañ koy tuddee bàyyi miskin yi ci Yemen bi américain yi gisee góor gi li muy liggéey ñu xam ne mi ngi liggéey l'islam lu garaaw parce que miskin yëpp doomu pauvre yëpp la jël di leen jàngal alxuraan di leen yar ba daaraam yi kenn xamul daara yi ni mu toll benn waaye jóge Amérique rek ñëw ne ko dama tuub man milliardaire laa ndeke dañ ko dañoo yónni waa ji jox ko alal ju du jeex waaye ñëw di tuub tuublu indi alal ju dul jeex ne ko dama bëgg ñu ànd États-Unis ñu ubbi fa daara yu mel nii ma nekk fa mu ànd ak moom ba mu ne cëpp aéroport gars yi daal di koy jàpp ne alkayda la bokk sànni ko ci kaso bi góor góor ba léegi mu ngi ci kaso bi li mu doon liggéey lépp te yàqu na lépp lépp lañ lépp a yàqu daara yëpp tëj na daara yëpp tëj na ñëpp xale yëpp ñibbi nañ waaye yu mel noonu la nit ñi war a yeewu muus parce que xam dëkk bi tey li fi nekk ab jigéen ne cëpp rek ah nga takk langar langar yi ànd ak moom xamoo ndeyam xamoo baayam xanaa sax dëgg dëgg dëgg dëgg boo xamoo boo ko xamee sax da koo xam ne xamoo ko xamoo fu mu jógee ci ay facebook ngeen xamee wala internet bi ngeen xamante loolu jar naa mooy te ndik baax a baax waaye léeg-léeg mbiru àdduna àdduna xam nga tey bu benn xale bu jigéen ñëwee ne la man sama passeport a ngi nii nationalité américaine aw ma jëkkër dama laa bëgg yenn saa yi sax mu ne la man du ma julli de nga ne garaawul après nañ ko négocier naa la daawa quoi pour nga tuub rek li lay intéressé mooy nga dem yooyu yu dara yu jara teey la dara def ndànk moo tax troisième groupe bi gis ngeen sëriñ bi ñu mu wax ñii seet alal rek lañ bëgg comme aj bi comme gàddaay comme tamit takk soxna mu ne aw yu jaahil sax yaajilil man maghnam waa ji sax mën nay jihaad pour am koom faqad zukira aidan hadha an-naw fi tafsir hadhihi al-aya mu ne wax nañ aussi wàll wii ci tafsir bi kama yata'allamu ar-rajul li ajli madrasa ahlihi aw maksabihim comme yenn saa yi tamit nga gis kuy jàng dara taxul ngay jàng lu dul rek wan nit ñi ne yaa leen ëpp xam-xam yaa fi raw am nga nangami diplôme jàng place sàngam yooyu léegi moo tax nit ñi di jàng ay am naa nangam am naa nangam au lieu nit ñi jàng ngir yàlla déedéet ak am naa lii am naa lii am naa diplôme bee fële laa génnee léegi loolu moo tax nit ñi di jàng yu bëri léegi jàngatuñu ngir yàlla wala jàng ngir am koom koomu àdduna koomu àdduna wala jiite nit ñi ah waaw jàng alxuraan ngir mën a am fonction ngir am salaire di jiite nit ñi ala salaat li ajli wazifatil masjid ngir am benn liggéey ci jàkka ji kama huwa waaqi kasir comme tey nu mu amee ci dëkk yu baree bari ak ay jàkka yu baree bari nga xam ne tey ah gouvernement bi mooy lay jël formé la boo génnee mu envoyé la ne la jàkk sàngam demal nga jiite bu weer dee nga dem trésor public ñu fay la walla léegi dëkk yu bari nit ñi dootuñ jàng ngir yàlla waaye dañuy jàng ngir lan ngir am alalu àdduna annaw rabi ñeenteelu façon ci nit ñi an ya'mala bi taati llahi muxlisan fi zalika lillahi waxda la sharika la lakinnahu ala amalin yukaffiruhu kufran yuxrijuhu an il islam bii tamit ci danger la bokk waa jaa ngi nii day def jëf ju baax jëf ju sell ngir yàlla jëf joo xam ne du bokkaale waaye waa ji loolu muy def yépp dafay def ay jëf yoo xam ne da koy génn ci lislaam comme day def nawaaqidul islaam waa ji day def lu baax mais day bokkaale day def lu baax mais day dem ci njabarkat yi xoolal tey ñaata sénégalais ngeen xam nga xam ne jigéen yu baax mais dañuy dem ci ay buxaaba ay bu ay ay xërëmkat te loolu day génn nit ci lislaam dañuy njabar nga gis soxna sox fan yee passé dama def benn waxtaan caar kër Mbay Fall biñ ñëwee ci question yi benn jigéen ñëw jël micro bi ne dafa am ñaari mbokk sunit aaw ak ñaareel dañoo daje ci buxaaba bi ku nekk di liggéey moroomam ñu xeex fa ñu àttaleen ñu ñëw ci kër gi xeex seen jëkkër wàcc teg leen saal bi lan ngeen jote ku nekk ne damaa dem ci sëriñ bi fekk ko fa damaa dem ci sëriñ bi fekk ko fa waa ñu ne lu ngeen dafa doon def waaw kii ne ma dafa doon liggéey kii ne dafa doon liggéey ku nekk ne leen mu leen fasanaa leen ñoom ñaar ñu génn dem seen yoon xoolal musiba bu rëy boobu xam nga ñooñu ku dem bay jaamu yàlla di ne da ngay góorgóorlu ci alquran ak sunna ngay dem ci ay bokkaalekat dem ci ay xërëmkat di takk gallaaj di nëbbatu nit ñi dafa ne yow yàlla gisu la loolu dafa bëri ci doomu aadama yi mooy ñuy def lu baax waaye ndeysaan lan mooy seen problème dañuy def ay jëf yoo xam da leen di génne ci diine mu ne mis mislu al yahud wa nasara gis nga yahudi ak nasaraan yi dañuy def lu baax waaye xoolal ñee ne Uzeyru doomu yàlla la ñii ne Isa doomu yàlla mais xam ngeen ne ñu ngi tabax ay hôpital ñu ngi tabax ay marché ñu ngi def ñu ngi faj ay nit sa doom day feebar léegi ñu ne ko yóbbu la ñu ne la yóbbu ko ci Kër Saar mu ngoog xool lu baax la ñuy def yëpp waaye lan moo tax amuñu tiyaaba mooy dañoo def ay mbir yoo xam def leen génne ci diine is abadullaha aw tasaddaqu aw saamu ibtigaa wajihillah wa daaril axira mu ne dañuy jaamu yàlla di saraxe woor ut jëmmi yàlla ut mbirum alaxira waaye del lu baree bari kasirun min hadihi l umma lu baree bari ci xeet wi alladina fihim kufr aw shirk akbar yuxrijuhum min al islam bil kulliya ci xeet wi di xeetu islam am na ci ñu baree baree baree bare dañuy def kéefir wala ñu def bokkaale bu mag boo xam ne daf leen di génne ci islam ci globalement bil kulliya id ataau llaha taatan xaalis yuriduuna biha sawaab allahi fi daari al axira lakinnahum ala amalin tuxrijuhum min al islam wa tamna'u qubula amalihim gis nga gaa yaa ngi nii nit ñu baax lañ ñoo ngi góorgóorlu seeni julli ñoo ngi woor ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi waaye loolu lépp nag seen loxo ndeyjoor bi mu ngëbee yàlla seen loxo càmmoñ dafa ngëbaale bokkaale waxuma la sax bokkaale bu ndaw waaye bokkaale boo xam ne daf leen di génn ci islaam ba pare day tax seeni jëf yàlla du ko nangu ndax innama yataqabbalu llah min almuttaqin mu ne fa haza nawu aydan qad zukira fi hadi al aya façon bi tamit yàlla leeral na ko ci aaya bi ñu passé woon ah jëlee nañ ci anas ibnu malik ak ñeneen ñu dul moom mu ne wa kaana salafu yaxaafuuna minha mu ne lii ñun ñuy def tey ñu njëkk ña sahaaba yaak ña ca topp ñoom day ragaloon nañu mbir yi ñuy def tey qaala baaduhum law aalamu anna allaha taqabbala minni sajda waahida la tamannaytu l mawt kenn ci salaf yooyu sax nee na man day bu ma wóoroon rek leer ma nañ yàlla nangul na ma benn sujjóot dinaa bëgg dee su ma wóoroon rek ne yàlla nangul na ma ah law alimtu anna allaha taqabbala minni lan sajda waahida su ma leeroon ne yàlla nangul na ma benn sujjóot mu ne la tamannaytul mawt dinaa mébét dee dajajeeg sama borom li anna allaha yaqul innama yataqabbalu allahu min almuttaqin ndax yàlla nee na ñi ragal yàlla laay nangul kon dégg nga moom nee na bu ma yàlla nanguloon benn sujjóot kon su ko yàlla nanguloon benn sujjóot fan la ko ci ci ñan la ko yàlla di boole almuttaqin almuttaqin la ko yàlla di boole kon day xam ne moom am na garaat bu rëy ndax bokk na ci ñi ragal yàlla moo tax yàlla nangul ko ndax yàlla nee na ñi ragal yàlla laay nangul summa qaala baqiya an yuqaal ida amila arrajulu alsalawat alxams والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا مثل أن يحج فرض الله ثم يهج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع فهو لما غلب عليه منها mu ne ci li des mu ne bu ñu waxee benn waaye ngi nii julli na julli juróom joxe na azak woor na aji na màkk ngir ut tiyaabay yàlla waaye après ba mu defee lii lépp ngir ut alaxira waaye summa baada zalika ginnaaw lii yëpp amila amalan qasidan bihi dunia après lii yëpp mu def nag ci lu baax defaat na ay jëf yoo xamante ne mbirum àdduna la ci jullu comme aj na far farata yàlla ginnaaw ba mu ajee farata yàlla mu dem ajiwaat na ngir àdduna comme tey ni mu amee ci lu baree bari mu ne loolu lan la ci borom xam-xam yi wax mu ne waqad qaala baaduhum fa huwa lima galaba alayhi minha mu ne léegi lu ñuy def ci atte waajooju mooy dañuy xool rek li mu def lan moo noot su fekkee yi mu def ngir yàlla moo noot wala yi mu def ngir àdduna moo noot su fekkee yi mu def ngir yàlla moo noot mu am tiyaaba su fekkee yi mu def ngir àdduna mu perte yeneen ci àlla musal ñenn ñi ñu ne alquran kathiran mimma yazkuru ahlul janna alquran bëri na buñ ko jàngee ñu fekk fa sunu borom jalla jalaaluhu di nettali waa aljanna alxullas wa ahlun naar alxullas ah wa yaskutu an sahibi saibataini wa ha- wa huwa hadha wa amsalu wa amsalu alquran gis nga mbokk yi dañuy wax waa aljanna mu wax ne dañoo sellaloon mu wax waa safara mu ne dañoo sellal waaye mu ne mu noppi ci bokkaalekat yi parce que dafay yàqu lu tax ñuy def mooy bokkaale mu ne loolu nag mooy misaal yu bare bari tey yu am mbokk yi incha allah lii mooy jeexitalu dars tey amee ay njuumte ñoo ngi koy jéggalu sunu borom asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci ci yi nga tardé bu fekkee am na yoo ci leerluwul ma.